والفجر والأبدار والأسار نبينا مرتبى asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo di nuyoo bi lislaam di jiital ci nuyoo bi ak borom bi subhaanahu wa taala yàggal ko fi moom ak mbooleem njabootuk sëriñ Tuubaa gi yëpp ak njabootuk lislaam yëpp mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ànd ak ñun si bi di rajo xasida online Touba Monde bi kàddu gi di bàyyi ko ci Touba Milano studio sëriñ Muntaxa Mbàkke nu Cheikh Mouhamadul Basir Mbàkke ginaaw bi ñu leen nuyoo siyaare leen bal leen ci leen ko ci ay rafet lool ànd bi nga xam ne yéen koy ànd ak ñun jamono bu nekk ci rajo xasid online tuba monde bi rawat nag seen jataay bii di xidmatul xadim xidmatul xadim nag di jataay bu ñuy ànd ak yéen dimanche bu nekk li ko tàmbalee fukki waxtu ak ñaar di midi ci diwaanu italie ak li ko wër jamono yi muy dëppoo ak fukki waxtu ak benn di 11 heures ci diwaanu sénégal ak li ko wër ngeen di ci ànd ak seen mbokkum talib Modou Assane Ndiaye mbokki tay nag ñuy amat mbokki tay nag ñuy amat lool mbégte ak kontante di sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala bim ñu mayatee tal ak fekke ak bir bañu delu ci wat fi di addu ngeen di tewlu seen jotaay bi di khidmatul khadim khidmatul khadim nak niñ ci baxo and ak yeen rek di andi lu am solo ci ay waxtaan wala ñu andi lu am solo ci jaar jaar yi mak ñu bax ni wala ñu andi lu am solo ci ay soññee ak i yu nga xam buñu ko tewlo rek danañu dollee fastef bu baax danañu dollee laxasay wante danañu dollee fatali ndigali serigne touba cheikh mat bamba kharim dosol ak yoon wi nga xam xal nako xalal ko xàllal ko mbooleem mbokki jullit ak mbokki talib yépp ngir ñu jaar ci mën dem ci sunu borom subhanahu wa taala tay nak ñu ñuy euh, amati lool mbégte kontaante di fas àndat yi ak ñi nga xam ne baaxoon nañoo ànd ak ñoom mu di waa karaamatu xatiyat yi di kuréeli xasida yi nga xamante ne nii eh, euh, bool nañ seen bopp tënku ci karaamatu xatiyat yi ci njiital sëriñ Modou Fall xasida at mu nekk nag mu màggal Touba defee weer ñu nekk di ko waajal ci kër sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadim sol gi jàkkaarloo ak jumaa ji guddig ajuma gu nekk ñu dalal kenn ci borom xam-xam yi fas yéene waxtaan ak moom ci yi wante fas moom ci tomb yu am solo yu nga xam ne yu jara waxtaane la yu am solo la ren nag karaamatu xattiya di am aw yoon wu am solo wu nga xam ne jël nañ ko gën ko rek dolli ci liggéey bi mu di jël xasida gi nga xam ne moo di nuuru daara yi nii fas yéene ko waxtaan yi mu mel ne nag dañ koo xaaj ay xaaj xaaj bu njëkk bi nag tey ki ci fas yéene àndal moo di sëriñ xaadim njaay tasawuf mu jël ci wàllam incha allah ni ki guddi ajuma gi ñu jëm incha allah danañ ci àndaat ak ñeneen ci boroomi xam-xam ñoom it ñu jël ci seen wàll ngir fas yéene ko faram fàcce fas yéene ko leeral ngir mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp mën a gën a dollee jariñu bu a baax a baax ci xasida googu nga xam ne moo di nuuru daaray kon mbokk yi ñu uh, guddal dañuy daal di nag uh, jébbal kàddu gi ki nga xam ne moo di sëriñ Modou Fall xasida mu ubbi jataay bi leeral mbokk yi ni waxtaan wi nar a demee ak ni mu nar a tëddee ginnaaw loolu na ñu jox kàddu gi ki nga xam ne moo di sëriñ Xaadim Njaay tasawuf mu dugg ak ñun ci waxtaan wi ci xasida gu tedd gu màgg gu am solo gi lool macha di nooru daara ni kon sëñ Modou Fall xasida bismillah aousu billahi min aseytaan rajim wa inni ausuha bika wa zuriyataha min aseytaan rajim rabbi ausu bika min hamasati sayatin wa ausu bika rabbi an yahduruni bokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen baalu xaq te di leen baal di ñaan ci baaxub sëriñ bi Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba yéenim ci sëriñ bi mu matale ko te ñu ànd koog moom di ñaan ci sëriñ bi itam fiixi sëriñ bi yàlla na wàcc ci sunu kaw te xeey ci sunu dareet ak ci sunu ñaq te mu ba ci sunuy sëtaat barkeb xasida yi ñoo ngi leen di jéggalu bu baax ci li nga xam ni weesu nañ ko lépp te ñaan ci sëñ Tuubaa it nag li ci sunu kanam lépp yàlla na dëppoo ngërëmam ñu delluwaat bu baax di leen nuyoolewaat ak sëriñ Xaadim Njaay tasawuf di ko ñaanal moom it ak yàgg ak wér ak ngërëmul sëñ Tuubaa lu sax dàkk barkeb Cheikh Ibrahima ñu ngi koy sant bu baax ci teewaayam ak bokk yi nga xam ne bokk na ci bokkook na ko ñun liggéey bi te saa fu ñu tollee fii mu ñëw ànd kook ñun ba liggéey bi egg ci gën gaa rafete anim loola waral tey jii mu teewaat fi ci wàccaay wi nga xam ne dañ koy def jëme ko ci màggal gi ren nag ñu tànn xasida ak nuuru daare ni muy xasida goo xam ni xasida gu fees dell ak ngëneel la ngëneel yoo xam ni sëriñ bi moo ko waxal boppam ci biir xasida gi sëriñ xaadim dana ci ñëw ak ñun waaye xasida la goo xam ni nangoo naa ci mbokkum taalibe moo xam ni ci làmmiñu sëriñ Abdul Xaadir la ko dégg mu wax ni sababu taalif xasida nuuru daare ni sëriñ bi dafa amoon yéene mbooleem li mu bind mu di ko jàng ak jotoom mayu ko ko mu taalif xasida gi sun borom won ko ci ay may yoo xam ne jàppoon na ni amu ko nee na mu yéemi ci lool sun borom nag ne ko nag ma sant mu woo jëwriñam ju ñuy wax Cheikh Ibra Faati mu ñëw mu ne ko ndax daayi wurus am na mu ni ko gisaguma ko day mbàkk mu ni su amoon rek ci lay bind xasida gi mooy xasida gi ahmadu moxniyan nee na bi mu taarifee xasida gi ba mu egg itam sun borom ne ko defal naa la dara darajey xasida gi ahmadu moxniyan wenn bëyitam wu nekk taxaw na taxawaayu nuur dari ni loolu nag bi ko sëriñ Tuubaa waxee wax ja siiw doy kapp njaareem mag ñi nag am ci xirtaange goo xam ni mënatu ñëw boole xasida ga génn xasida guddeeg bëccëg ahmadu moo xam yeen rek lañuy jàng ñii di ko bind di ko takk ñii di ko bind di naan ñii di ko bind di sangoo sëriñ bi daane nag nañ ko boole nuuru day ndax benn lañ mënuñoo tàqali ko loolu moo waral daal di nag nañ koy boole daal di woo jëwriñam ji ñuy wax maam Cheikh Anta mu ñëw mu ne ko xasida gi saa boo xëyatee na nga ko jàng maam Cheikh Anta xool xasida gi daan ko waaye mbàkk lii daa bari mu ne ko kon nag nga ut la koy jàngal Dan ne xasida nga ko xamni amul lu mënul àddina ka alaxira maamam cheikh anta day wax ni nak kep ko xamni nga jangal ko xasida nur dari ni dana la jox junni mu jeuker mam cheikh anta fees del ak jàngkati nur daari ndax junni bi mu jitam keur gi melni ni ajjan sama jeurign ci xasida yi ci mom wax ne ma dafa mujj dañuy tek ndab lo xamni sosa ay ndab yo xamni sosa rek lay doon waaye dañuy teg ndoxum neen teg ndab loo xam ne sax sax lay def teg leneen ndab loo xam ne sikki lay def bu ñu lekkee ci soos si ba not laal ci ndoxum neen mi laal ci sax faraan bi diw laal ci sikki bi diw loola nag dem ba njëriñ jëpp fees dellu noonu ak i xéewal suñu woon maam Cheikh mu ñëw munu ko Cheikh da ngay dem àjjana xaar te faatoogu leen mu ne ko am ah, mbàkkat yaa wax ni amul lu mënul àddina ak alaxira mu ne kon ma tiil ko ba ëllëg wax nañ ni ma teel leen ko ji ëllëg jooji ab diir bu gàtt la fi sëñ bi defaat ñëw Touba. yëf yi nag tara tar tar goo xam ni mett na lool mag ñépp am ci jaaxle ba waxtaan ci ñu wax ni nañu nañu woo sëñ Moussa mu defal leen xasida ak tawasul ci sëriñ Touba. moo tax sëñ Moussa bi mu ñëwee ba ci biir mu ne ko libin ak si kéeki sax faraan lañ daa diwoo muy walangaan ñi xelli kopp yi di naan oto yi corne xarnu bi nee na ma sawut bi loolu moo ko waral kon nag mel na ni bi sëriñ Saliou ñëwee tam yoroon mboolem caay bi yi nga xam ni mooy caay bi ngeen li xaside yépp mu ubbiwaat nag magasin yooyu wàccewaat nag xéewal yooyu muy sotti ba ndaw ñi kenn ku ci nekk mën a toog jàngam nuur day ne ci diir bu gàtt ñii di ko mën a tari kon xéewal yooyee di dellu siwaat ca kaw suuf bu ñu tollee fii nag tey jii xaside gi nekk xaside gu yaatu ay ngëneel bari lool ay tedd nga siñ xaadim war ñëw tey jii tàmbali ñu liggéey bi dana na ci waxtaane ñetti téeméeri bayit ak ñeent fukk ak juróom bii ñu jëm tombeek la sëriñ maxtaar fay nur darini war fee ñëw moom it waxtaan ci ñett téeméer bayit ak fukk ak juróom ba ca toppaat sëriñ Xaboo Mbàkke ma faatewul bisri moom it war a dellusiwaat fii waxtaane ci moom it lu toll ci noonu ci ay bayit tàmbalee ci bayitu juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar ba ca toppaat sëriñ Moor Mbàkke xam sa diine war tàmbalee ci moom it ci yàllaw yaa raxmaanu yaa raxiim maliku yaa xuddus yaa mukrim yaa tombeeg junniy bayit ak ñaar fukk ak juróom-ñaar moo war a mottali xaside gi mu war a des ahmadu muxniyen ak yaa seydi yi loolu bu nu àggee ca gàmmu ga lañ koy mottali ñoo ngi ñaan Serigne tubaa mu defal ñu tawféexi boppam te yaatalul ñu liggéey bi te nangul ñu ko ba seytaane bañ ci am wenn yoon te lépp di ngërëmum ñu defaat ko addiya mu delluwaat ca moom barakat Cheikhuna Ahmadul Khadim ñoo ngi sant bu baax tey jégguluwaat bu baax di dalalaat sëñ xaadim di ko ñaanal ak yàgg ak wér ba liggéey bii muy liggéey sëriñ Touba sëriñ Touba dëpp ko kattan waaye nag tiim kooku waa meew xéewal boo xam ne ko koy sotti rek ba keroog ñu yool buftu bi mu dolliwaat ko nag te lépp dee di sëriñ Touba ñoo ngi koy sant bu baax ndax ànd bi lépp dëgg la te sëriñ Touba rek ko tax di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te di sàkku ci yéen ngeen gën koo ñaanal ndax liggéeyaa kon lu sëriñ Touba la ndax li muy def ci Serigne Touba lay tàmbalee ci yam kon nag ñu ngi koy dalal bu baax ci pàkk bu sell bi ak guddi gu sell gi nga xam ni mi mënees naa wax ni Serigne Touba nangul nañu liggéey bi ndax nuuru daari ni la ñuy waxtaanee tey jii tey jii mu tàmbeeg bisu sëriñ bu mag bi kon Serigne Touba nangu nañu liggéey bi kon nag lu waay bëgg ci na ko ñaan te jiital ci Cheikh Sidi Mokhtar mu yàgg fi lool te ànd ko wér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 wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayidina wa moolana muhammadin nabiil ummi wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri xadimihi wa sallim bokki jullit yi bokki daayira bi ñu ngi leen di nuyu bu baax leen sant di leen gërëm ci seen liggéey bu rafet bu ànd ak positif ak yittewu ak bëgg lu baax ko sax gi nga xamni yi nang koy def sa bu ne ñu di len ci ndokkel bu baax diko def ci guddi gi gëna tedd ci guddi yépp muy guddi ajjuma di ko defee ci pak bi gën pak yépp muy pàkkub touba fi ngeen koy defé di kër serigne touba tek ci ndax dëkk bi kër serigne touba ndax touba la wax tuba borom tuba moko mom motax ñuy wax borom tuba waye buñ daggé lu toll ni daal ne kërëma wutal luñ ko fi fu mu yam waye ab ab xamé ko kay rek la ndax muñta ñak waye dëkk bi mom lepp kër señ tuba rek la su ko defé nak yitte ji ngeen am ba tax li ngeen di def ngeen ñew di wétali kër gi ci lañ leen di ndokkel ñaan ci borom guddigi nga xamne liggey bi ngeen def lip ci mom ngeen ko joyal yal nako yalla barkel te nangu ko te dencal len ko fo xamne fi yaq du fa ag rafet nañ ci njortu sax ndax lepp lo moomale seigne touba dara du ko yaq ndax yalla lak na mbiram seigne touba lak go xamne ne gii lo ne li de dama koy jëf ngir seigne touba def ko muy liggey seigne touba rek lu yaq du ci tabbi liggéey bi nag day liggéey bu rëy ñu di ko tàmbuli te xam ngeen ne guddi gii di tombeek màggalu sëriñ Cheikh Mamadul Moustapha guddi gi di guddi gi ma teg ci mel ni ci muharram bi nu koy defee di 1436 loolu it mbégte la moom mu rëy rëy rëy waaye li ci gën doon mbégte it mooy tàmbuli waxtaan ci màggalub 1436 waajtaay ubbee ko xasid ak nuuru dare ni man de wax dëgg biñ ma joxee tomb waxtaan wi léegi nañ gëstu ci nuuru dare ni wax dëgg bëgguma ca dama ca am njàqare ndax dencub mag ak kaggug mag koo xam ne kii ab ab ab ab duuñ ab duuñ boo xam ne danga ngaa gàtt lool loo xam ne garab jotu ko ron jotu ko amul benn bant buñ ko mën a yóotoo ba jot ko buñ ca buñ la ca bëggee def loo dara wala ñu wax loola ci dara day daal di doy waar loola moo cay njàqare gën ca am waaye nag dañ ciy wax waaye waxuñ ko dañ ciy jàngat waaye jànguñ ko dañ ciy waxtaan waaye waxtaanewuñ ko maanaam mënuñoo peeg ba waxtaane ko lañ ci jublu waaye dañ ciy wax rek lu tolloog liñ ci mën a jariñu su ko defee nag di ubbik téere bi it nga xam ne lii sëriñ Moodu Fall wax xasaayit ci taarif bi doy na sëkk walif ñuy waxati leneen ndax wax bu xasee jógee ci doomi sëriñ Tuubaa ñu ne la sëriñ doomi sëriñ Tuubaa de wax na ne ka nett li nee na moo dégg ne yaakaar naa ne day daal di doy sëkk kon sababu taalifu xasida gi loolu rekk la xasida nag ay mbind la moo xam ne dundub sëriñ bi yépp ci loolu la ko def nga xam ne ay way la téere nuuru daaray ni ay way la yoo xam ne da koo def ci benn baxru baxru mooy benn natt boo xam ne da ko caa natt booba nag rajas la ndax bari na mbindam moom def lool ci baxar boobu la ko liggéey ndax boroom xam-xam yi dañuy def buñ bëggee def ay wax bëgg wax ja neex lool dañ koy peese peese boobu nag nga xam ne day am ay yoo xam ne day day day day day day day day day day yéeg ak di wàcc ak di tàlli loolu moom lañuy ñuy natt natt ba daal di koy farale lenn ci géej yooyu nga xam ne suñ ko mënee tuddee noonu muy baxaru waykat ba way ci ne fii abxuril arjaasi baxrun yashalu aw yashulu mustafilun mustafilun mustafilun noonu la ko tëggee nga xam ne boo ne sahula muy xasida bi yashulu boo ne yashalu li shaacir moo tax ñu tuddee ko ximaaru shuara ñu ne daal woykat yi bëgg a way lépp xeetu baxru bi dafa neex a woye waaye bu fekkee ne nag ci sëriñ bi la moom man gis-gis boobu duma ko ci am li ma ci gis mooy sëñ bi ci asaalib yi nga xam ne ulama yi soaraw yi dañ koy tëgge maanaam ci xeeti fànni fànn yi nga xam ne ñiy bind dañ koy bind rawatina ñiy woy moom da caa bokk bi ëpp lu muy jëfandikoo mooy xamle xamle nga xam ne uslub elmi yi mooy muy muy muy muy làkku wala waxiinu xam-xam waaye amut beneen xarab maanaam amut beneen xememteef ci li muy bind ginnaaw xam nañ ñun ñëpp ne ndigalul yàlla la ci am ba noppit yàlla jox ko ay jumtukaay yum ko defee yu mat sëkk kon su boobaa day daal mel ni loolu mooy gën ëpp doole ci li ñuy wax ne moom kat da ko doon defee ci fànnu xamle kan la doon xamle muy muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam weesul loolu kat liggéeyam bépp lu rekk la dundam gépp lu rekk la fekk na it da caa roy sunu borom rek ndax sunu borom moom moo njëkk xamle yonent bi sonn na ci lool ngir nit ñi xam ko bam nammee ñu xam ko da ko jubal def jikko ju rafet ku bëggatee am jikko ju rafet roy ko ci moom moomee def ko mu bëgg jaamu yàlla bëgg lu baax di sikkar aka wéet nii ngeen def nii tey muy sikkar di wéet yonent bee ko njëkk a def moo tax wa wajadaka daalan fahadaa jooje loolu rek ko waral dama laa fekkoon ngay làmbatu ak réer waaye du réer goo xam ne réer gu téppéeral déedéet bi bil anwaar rek mooy ku bëgg lu baax di làmbatu lu baax xeeti ni ñi waye nag nga xam ne dafa am ñaari fànn muy xam baatub arab xam tegalin wu rafet am xalaat bu rafet xamit jamono ji nga xam ne moom ngay waxe loolu lañ tuddee uslub uslub nag ci ku dégg arab day laaj nit ku dégg arab xam naxwu muy grammaire ba noppit xam elmul euh, xaafiya xam xaafiya muy elmul arud muy xam nu ñuy gaarale aw way xamit way ni muy mujj mujjuntal ak way bu weesoo loola nga dem ci xam-xamu ilmul bayaan muy balaaxa ëmb leen yooyu ñuy bayaan ak badiya ak mantex muy kii de ni waxe waxee waxin wu neex wi maanaa yu bari yi baat yu neex yi nga xam ne ak tënk léeg-léeg muy tënk léeg-léeg muy muy muy muy duufal ñuy ijaaz ak itnaab ak yu mel noonu léeg-léeg muy def mu muxaabala léeg-léeg muy insa léeg-léeg muy ixbaar yooyu yëpp ay xeeti wayin la borom nattukaay ñoo ko génne xam-xam boobu ñu tuddee ko elmul bayaan ñu ne diw de dégg na balaaxa moom sëriñ bi nag mu teg ca yeneen yu bari yu rafetal làmmiñam rafetal mbindinam muy fasaaxa gi ko sunu borom joxoon waaye jox gi mu ko joxoon it leeruk làmmiñu arab ndax nusi ali nuuru lisaan wal kitaab asmaana xidmati la daa ahlil kitaab nee na ba ma jógee di liggéeyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam sunu borom dafa nocci leeru arab daal ma koy jox kon ndeke lim doon taalif lépp ci anam googu la ko taalifee suñ xoolee it ku rafet mbindin la ci wàllu yooyu ndax lépp lu ñuy xool ci ne kii de rafet na nu muy woyee am na ci biir waxinu sëriñ bi rawatina nag jinaas yu rafet ak euh, niñ tuddee alfaas yu rafet ak tarkib ak xuruful xijja yooyu jekk yi mi def ak manam yu jotale yi yoy yëpp gis nañ ne dana ko faral di jefandiko mom serign bi ci way ci ci ci mbind gis nañ ne it ñi nga xamne dañuy def nee nañ uslubul ilm nak dafa gëna nek ahdaul ahdawul azalib mantiq ci mantiq salim wal fikr al mustaqim neenañ nañ waxin wu mucc ayib xalaat yu jup te ku ne bi ku ne xam na ne suñ duggee di wax maanaa sababu lu tax mu mu fi mu àggoon ba tax muy muy taalif xasida bi da nga ci gis ne baat boobu ñu wax ne wal fikrul mustaqim te ñi ngi ko xam ci ihdina siraatul mustaqim da nga gis ne loola bokk na ci sabab yi tax te ginnaaw suaraaw yi ñoo bind wax ne nit ki léeg-léeg dana àgg foofu ci bu jëfandikoo uslub boobu nga xam ne yu xaatibul la day waxante ak xel Euh, day waxante ak xel di ko yu yunaajil fikr di déeyaale ak xalaat moo tax bu nit di jàng mbindam sëñ tubaa xelam day nàcc boo yàggee jàng doon jàngkatub xasida rek da ngay daal di tàmbalee xam lu bare bare bari te fekk kenn du la ko xamal loolu moo koy jur ci nit ki ndax fi mu ko fi mu ko defee wa yashrawu xaqaiq al almiya ba noppi nag muy leeral nag dëgg dëggi xaqiiqa yi xam-xam yu bari xam-xam yooyu nag mooy xam-xam yi ëmbe ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam su ko defee nag kon loolu mooy xeetu fànni liggéey sëriñ bi neexu xasidaam rafet mbindam ci wàllu zahir loolu ci wàllu zahir la amma wàllu baatin bi moom ñun ñëpp xam nañ ne ab liggéey la bu warlu boo xam ne yàlla moo ko wax ne ko dee ko def ndax daf ko defal lu tax li tax mu liggéeyal yàlla te amul ñenn ñu ko jàppale te lim bëgg a def ci yoonu yàlla yépp mu def ko te yàlla boole woon ko ak ñi gën a bon ci àdduna muy tubaab yi loola li ko sabab mu doyloo am mbooloo doyloo jël jëmmam ji rek doyloo walif mbooloo doyloo jëmmam walif mbooloo yàlla daf ko ko jox mu def ko ci xalimbaam nga xam ne kon xalimbaam jihaad la ak ak jaayante te defe naa ne buñ duggee ci biir xasida gi da ngeen ci fekk loolu mu waxal ko boppam aggut sax nag weesu na it nag ci abiyaat yi ñuy yi nga xam ne moom lañ jagloo jagoo gëstu nun waaye ca kanam la ko wax waaye munoo wax loolu te doo dem ca kanam ndax fa ngay xamee lu sabab xasida gi fala la koy leerale dëgg-dëgg ndax sëñ Tuubaa moom fi mu jëm dafa leer tey du nëbbu du naxe du ndax si ndaw it moom léppam dafa leer nañ ñi suñ xoolee nag danañ gis ne ci wàllu gëstu lañ koy teg ci liñ ci xam que néew waaye lu bare bare bari la suñ ko doon def dong bañ cee leeral benn bayit day daal doy sëkk muy bokk na ci biim demee ba àgg fii Serigne Modou Fall doon wax àgg ci yàlla foo xam ne benn doomu aadama mosu faa àgg am ci yàlla loo xam ne kenn mosu koo am yàlla àndeek Serigne àndin woo xam ne kenn mosu ko mosu koo àndeek benn jàmmam Serigne tubaa it amul lenn lu ko ameel moom sunu borom lu dul nag fas yéene koo sant dong ndax booba liñ tuddee naan. yiw muy lu baax booba dajale ni sëñ tubaa ak yiw àdduna maanaam jaala niyatahu ka fi ali saalihin sunu borom dafa dem ba ne sëñ tubaa sa yéene de moo jëfi saalihin yee bokk te ku xam saalix nu mel maanaam kenn yónent sax balaa baax faw mu am salaaxiya salaaxiya ñëpp ku ne àdduna da nga ko am ku baax rek am nga ko te kenn mënta am leneen ku am leneen te amoo salaaxiya manqué nga kon moom mooy al aam wal axas bu ko nag wa jamaa bayna wa bayna kulli xayr àgg ba ci nag ne ko xam nga yiw yiwu àdduna mu ne ko waaw mu ne ko boole naa la ak yiw teranga yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira yaakaar naa ne bu ñaar yooyu képp buñ ci amoon dana doy sëkk sant yàlla mooy def naa sa yéene mel yéene gaa yu baax yi boole naa la ak yiw te dootu leen tàggoo dem naa ba àgg ci boole naa la ak ahlul xufri maanaam ñi nga xam ne dañ leen a jéggal ba noppi Sëriñ Tuubaa nee na àgg na ci yàlla àgg na ak man ba ne dootuma la booleek nit koo xam ne dama koy topp bàkkaar nga xam ne nit ñuñ jéggal ñëpp sama ñun ñëpp ñu yàlla daleen di jéggal seen i bàkkaar nga xam ne mi ngi mel ni ay mat mat mat ak àll mën naa tàkk lool waaye lu sa war a bari bari boo ci sotti ndox rek mu sedd noonu la seen mbir demee ku ci ku ci def lu nuru lu saa soo jàngee xasida wala nga daal di tàmbulee bëgg xalaat sañ wala nga bëgg baax rek day daal di mel ni luñ sotti ndox da ngay daal di jub te ku ne xam na ne yàlla nee na noppi naa ngir jéggal képp ku ma tooñ te sëñ Tuubaa jéggalul na njëkk yàlla di ko jox ndiggal lii loolu ci biir xasida gi la ko wax ñaareel ba ñetteel walla ñeenteel ba muy mu bàyyi atu mu bàyyi bàyyaatu bil xalam dafa jaayante woon ak sunu boroom ci xalim ak boppam loolu it muy ñeenteel bi juróomeel bi mooy mukaatabatu seexal xaddim wala kitaabatu seexal xaddim muy mbindum sëriñ tubaa kaana yaxsa manafia daarayni dafa dem ba ëmb njariñu àddina ak njariñu àllaaxira ba àgg ci njariñ loolu bëggul fi ko yàlla fi ko yàlla teg ak li ko yàlla jox mu am ko benn taalibe di ko ñàkk te fekk moo koy xañ sëriñ bi bëgg waxuma la jëlale naa taalibe boppam waaye képp ku yàlla dogal nga mën a jàng waaye jëlale naa mën a jàng waaye lim bindal boppam ba suñu borom nangu ko man nga mën koo xool képp waaye waaye xanaa nag nit lu mu yambare yambare war a mën a xool mbindum sëñ Tuba suñu borom àgg na ci ba sëñ tubaa defal na yàlla def koo xam ne mbindum mu bindal boppam ci toog ci xalim ak boppam ci xelam boppam ci xalaat ak boppam fekk ne saa bu koy def yàlla nga ubbi diggante mulk ak malakoot ak fii ci lawxal nga xam ne fa mbir yi borom ya yem mbir ya tàmbule foofu jëm ci jaan ñi diggante boobu ubbi na ko mu def ak leer malaaka yi di dem ak a dikk di jël araf wu mu bind ñu yóbbu ko sunu borom peese ko natt ba wax ko ca lam ko cay fay nga xam ne noonu la bindi xasida ba baat bi nga xool ko way wi daanu ñu xool ko lu mu ci am ba àgg ci xasida gi soog a àgg bu xasida ga àggee nag yàlla di desalatu ko dara lu du pëstéefu nit ki rek nag lu mu bëgg ci xasida gi am ko ci nooru daara ni nag dafa mel daa mel ni mooy lim tënkoon foofu ci wax ne àgg na ci ba daal bi mu liggéeyee xasida gi ba noppi muy njariñul àdduna la ak alaaxira muy nooru dare day leeral barsaq muy bu nit ki bu faatoo leeral ëllëg yowmal xiyam yaakaar na nag ku àdduna gi yor sab làmp di niit jëm danga fa nga jëm danga ko xam teg sab tànk dana yomb nooru daare ni day mel làmp bu nekk ci loxool nit ki nga xam ne dafa am fu jëm mu lëndëm mu bëgg faa dem ah yaakaar naa ne nag kon léegi jumtukaay bu mel noonu ku ko am dootoo amati jaaxle kon loolu mooy nooru daara beneen bi ci des mooy juróom-benneel bi mooy sunu borom dem na ba def ko waffaqahu llahu tabaraka wa taala lil xayr yàlla dafa dem ba dëppale sëñ Tuubaa ak yow ki nga xam ne maanaam fi ne boo bëggul dara loolu gis jëmm ji képp boo ci liggéey rek yàlla boole laag lu baax ba faaw gis jëmmi sëñ Tuubaa rek loola àggoon na ci ba ku ko teg bët far doo gumba ci àdduna mukk sëñ Tuubaa àggoon na foofu ñaari alha bu ngeen demee ci biir mooy way woo muy wax naan euh, alhamani wafaqani wafaqtani maanaam dëppale nga ma te ilham ma mooy yenkeewal yàlla dëppalewu ko rek day yem ci la ko wax ak moom ba mu dégg ko loolu ci bayit la ci biir àgg na ci ba def ko ne ko xamal naa la lépp loo xam ne kump la loo xam ne daana ump nit ku nekk ci kaw suuf di dund yow sama diggante yow nee na sax sunu borom da ko wax ne ko loolu amatuloo ko lola tax ngeen gis ni seigne touba dafa melone ni su toge di waxtan ak nit ñi di dugg ci kessam genn da melni kuy dem mëlakoot ak aras ak kursi di déeyaale sunu borom ak ñëw dara umputu ko ci aduna li nga xamni moy atti aduna yi jëm suuf malaaka yi fi ne jinne yi fi yi sunu borom da ko ci defal tasarruf tasarruf moy man-man lu ko ci soob rek def ko ci lola tax yenn wax yi nga xamni da koy faral di wax lu bari waaye sunu borom wessu nak mom fofu ndax mbirum sëñ tubaa ak i dongam moom ak ab dëkkam ak yooyu ba suñu borom di sàkk jamono daa mel daf ne ko kaay toog ma sàkk li ma bëgg ci kaw suuf ndax ku ne xam na ne alamul alamul asbab alamul arwaax ko jiitu foofa alamul ar la foofa loolu lay wax ne xalaqani ma shi'tu minhu biku ni ah nee na sama borom dafa àgg ci ne daf ne ma xoolal loola soob ma bind la ko yow yaakaar na nag foofu ko fa àgg nit kon loola kenn xamul léegi nag bi sëriñ bi defar nuuru daari nii daf ne sama borom ka ndeke naxuma hmm. la mu waxante woon ak man ci azal bi ma dikkee ci ko su ndekke noonu la def man nag eh, dinaa leen ci wax loo waaw eh, boole ko it nag boole ko ci liñ tuddee nuur nuurul bu la xaar mooy way way jotale ñi dëgg ñi nga xam ne baliir mooy nit ku jox de bu la hmm. xaar nag mooy way jotale ñëpp comme Karim ak Kurama hmm. ñooñu sëriñ bi daal dem ba ba àgg ci ku koo xam ne ki yàlla mas na koo mën a may wax ben muy ab yonent wala nang ndax yonent dotu am waye daraja yoy yëpp sunu borom it jël ko jox ko ko ne ko jox na la ko tey ndax kat nit waxatu lu dàq li ngay wax nit defatu lu gëna lu gëna am solo li ngay def nit melatu ci man nu raw ni nga mel no xamne nonu la koy xolé jappé ko nenn nu dul ni nga mel señ touba dafa dem ba neex yalla neex ro xamne neex ñepp ci ko suuf lola tax sunu borom daan ko diglu boba moy capital bi nga xamne mbirum sunu borom buy wàcc ci kaw jamono ak buy yéeg booba njaaree may capital xaw ma nag tey tuubaa gi mu tudd fii xaw ma waaye daal booba njaaree ma ko doon lool. gis ne sunu borom dem na ba àgg it nag ne ko sa xalimba de moo ma gënal xalimba képp xalam woo ahaba ilay ni kulli xayr maanaam ne ko sa xalimba ma gënal yiw buñ may defal. Ah loolu nag masiatu rabbaniya la kenn du dem ci yàlla naan ko lu tax nga def ko maanaam mbindam Serigne Touba yàlla wax na ko ne ko sa mbind ma gënal lu ma nit di defal ci kaw suuf. ab jam lu may defal ci kaw suuf sa mbind ma ko dàqal tax nak sëriñ ba di jundju ci biir nan sama mbind ma de àgg na ba kawe wépp yu lepp lo xamni nit ki da koy defal yalla léegi léegi loolu dafa istikhraq nak gep jaamu yalla rek lola tax jam bo xamni bi nak yow sa yoon neeku diggante bobu diggante sëñ beeg sunu borom yow yemal ci di fas yene ci jarign kon day di kuko jang rek njariñ li mëne su ko lim dem na ba ak sunu borom ne ko sa dund day ndégteem gaañu baax ñëpp la sëñ Tuubaa nekk di nekkoon ci jamono rek demoon na ba wala yi yi nga xam ne dañoo ñëwoon jamono te bàyyi ko dañoo ñaanaat sunu borom dellu siwaat nekkaat ci ëtt sëñ Tuubaa waat ak i dongaam ñenn ñi barkeelu ci ab liggéeyam soog a dem ndax ñu bari seetlu nañ ne bu masaan santaane dara am na ñu bari mag ñoo xam ne wax nañ ne daan nañ ci gis ñoo xam ne duñ xam lu ñu nuru daan nañ def ne léeg-léeg danañ jéem dara mu të ñu bari benn waaye dikk rek daal di koy def defin woo xam ne ñun danañ dem bu loola weesoo la ñu soog a xam ne kii du nit a moo tax sëñ Fallou bi ñuy jël carrière beeka defar jumaa ji da leen daan wax naan ku waaye laajat bu kenn laaj dara ngeen dem rek loolu ku ne xam na ko sëñ Sonia bi mi nii daana wax ne diggante barab diggante foofu ci jumaa ji mu déyaale woon ak sunu borom diggante kër ga ak jumaa ji ne na ëpp na di sol ay dàll waaye daana wax ne képp ku ngeen fi gis mu toog sol loo xam ne nur na dafa mel ni koo xam ne dafa xel ma dafa dem na ngeen ko bàyyi xel te wormaal ko na ngeen ko bàyyi xel te wormaal ko kon ñoom xamoon nañ yu yu mel noonu ñaari bay ak yu bari yoo xam ne bokki taalibe ak ñu yàlla may kësfu diggante fii moom li wër jumaa jeeg Tuubaa gi gis nañ fi yoo xam ne yi dana firndeel yu mel yi ñu wax léegi gis nañ ni moom moo waxal boppam ne li set bi sukrin lakk fil fardi rajab wa fi siwaahu yaa mudiman lil ajab man nag dama ne xasida bi bi mu dikkee njaareem ca atum ñaareel ma ci sunu gëstu bopp loolu la nu may ne ca la ko tàmbali tàmbali sëriñ bi liggéey nag bokkut ak bu mu ko àggalee ndax day dëppoog ndigalu yàlla yi ak fan ya waxtu wu ca waxtu wu ne jaamu yàlla nga sunu borom bëgg da koy sant sëriñ bi mu defal ko ko ndax sëñ Tuubaa demoon na ba sañta la wala mu jàng alxuraan te dëppwut ak ndigalu sunu borom tey gis nañ ne mooy rësul uxrum yi mooy sëru rajab sëru rajab boobu di nga xam ne di weer wi suñu boroom moomal boppam yaakaar nañ ne soo xoolee ci biir xasida gi lim na tënk na ci tënk yooyu muy diggante balsasin ak asasin wax na ca ne sunu borom defal na ko ci lu baree bare ci la ma leeral ne lu ma ko mas a defar rek nangu na ko te diggante boobu it mooy coono bi foofu it la ne ko ndax bim nekké nekkee ci ci ceen la ko ñëk wax ne ko yow day li nga am li nga am ak ñi nga gëreum sawara amatu ci ñom aw yoon da nga na xasida yooyu mu bind jollof boo xolé fofu la waxé ne fofu la ko suñu borom joxé lool légui nak ku ni dégg né li señ Modou wax ne bim ko défé am mak mag ñooñ won nañ diko jang ba amna ñuko mokal daan ko jang bam mu mam Cheikh Anta ne nañ la koy jangal ngir yu bax yi xasida gi lambo ak lepp lu serigne bi def day bëgg mu sax ci ñu nit ñi sax ci xori nit ñi motax daana leen ci defal tarxib moy wax leen sabab yi tax ndax day lo nit ki yalla sax jaamu yalla dafa nit ñi aljanna am fi naim am na fi darus salam am fi firdaw am fi ak yeneen aljanna motax nit ki di am tefu bëgg dem ci aljanna je gëna kawé kawe ngir mu yitteewu lu baax nit sax boy jang te xamul ni su yagge dana nekk ilimaan wala mu nekk chef de maçon wala mu nekk leneen du ko du ca sawar waaye yi ci kanam nit ñi muy yéene yi muy amaal yeeg rajaa yi yooyu tax ak loolu tax tarxibaat yi nit ki di am sopp ak positif ak góorgóorlu ci liggéeyal yàlla wala liggéey lu koy jariñ ci àdduna kon ndekete jaamu yàlla sax dafa am lu ci yàlla dig nit ki waaye ndekete looloo tax Sëñ Tuubaa daan def bu taalifi xasida wax mag ñi ne leen lii la ma ci sama borom defal lii la ma ci sama borom defal xasida gune nag mën nañoo lim ay njariñam ba mu des xasida gi gii moom yaakaar naa ne kenn xamul ay njëriñam nu mel ndax sëñ Tuubaa daan def ne su bindee say xasida bu noppee daan ne yàlla defal xasida gi xasida gu ma la mas a defal na gi gën a kawe suñu borom ne ko nangu naa soo lëggatee mu defate geneen xasida waxati ko day mel ni daal day nax suñu borom suñu borom di naxanteeg moom rek dundam gépp daal noonu la ci def foo xoolee fu mu taal fi xasida gu noppi rek daf la koy wax loolu rek daan ne ko nag defal xasida ahabba ahabba bu euh, ilayka mimma katabtu min qablu ku ne gis na ko ci xasida yu bare bare bare ba ci xasida yi nga xam ne sax euh, da koo da ko bind te tënkewu ko alquran sax yooyu am na ci kon dangay gis ne noonu la ko suñu borom defub dundam def na ko it lam doon ñaan ca mu xadd ca jaalibatul maraqib naan ko dama bëgg a nekk xaddiman asna wa an afoosa bil maqaril asna fii la ko jawaabee nee na yàlla def na ma defal na ma loole ci xasida ci ci jamono bobu bi mu ñëwee njaareem ba tok la ko sunu borom ne ko tay gi de la nga doon ñaan ba nga nekké gabon ba tax nga diko bind ni da nga bëgg dal kenn dootu gis di sa diggante rasulullah ya ci jiitu ci liggéey kët yépp suñu démé aljanna hit barab ba fa gëna kawé kawe fa sa rasulullah dëkk fa fa gëna neex nga dëkk defal na la ko su légui nak bi ko suñu borom defalé nak kon dara sutul lu sant ko euh dem na ba ne ko yow de sax des fi ndax dama laa dama laa dafa mel da ngay taarab alxuraan te alxuraan day sama melo bopp sëriñ bii dem ba sunu borom wax ko ne ko sax des fi dafa ma neex neex goo xam ne ndax sax des fi mooy mbóotum alxuraan des fi ndax ni nga fonke alxuraan li nga koy liggéeyal sëriñ bi it nag loola mu xam ne ci àtteeb sunu borom ak àtteeb jamono mu mu ne sunu borom ne kon naa ko liggéey liggéey boo xam ne loola dana téye mbóotum alxuraan des fi ba faw fi ne gis nga xasaayid yi mbóot la ci li fiy saxal alxuraan ndax fi ne bala ñoo def benn day daayira danañ jàng alxuraan ba noppi bala ñoo def ak cant danañ jàng alxuraan ba noppi loola mooy mbóotum xasida day mbóotum alxuraan da ko fi téye moo ko téye téye boo xam ne secret na te képp ko mën a jàng xasida su yàggee nga mën a jàng alxuraan lu karim lol bari na ko xamne ne mënta woon al kamil al Quran. waye bimu demee ba meuna lire liir so soo ndax mbind mi ben la yahi ben la badi ben la ke dafa al quran ki tuddu xasida ke sunu borom wax ko ki na jambu sunu borom jox ndigal geureum ko rasulullah jox ko mu def ko motax baqahu bil kitab sururun lillahi tabaraka taala manam def gi sunu borom seigne touba def di sam al quran don mbektem sunu borom waaw kon nag loo xam ne dem na ba doon mbégteem suñu borom jàng bi dund ci kaw suuf sax yow nag kon ndekete sëñ Tuubaa rek nekkam ci kaw jamono ginnaaw mbégteem yàlla la di mbégteem rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaw kon kay koo xam ne kii nekkuk sëñ Tuubaa du sa mbég da ngaa xamul waaye ku ci bég rek nekk bég nga ci mbégum yàlla maanaam bég ci sëriñ Tuubaa ci nekkuk jamonoom mooy bég nga ci lu sunu borom bég bég nga ci lu rasulullah sallallahu alayhi wasallam de loolu it bokk na ci. bokk dem na ba ak ci dund ak sëriñ bi dem na ba nekk riaaya lil quraanul karim nga xam ne ak dundam daal mooy sàmm alquraanul karim yaakaar naa ni loolu bokk na ci yu gàtt yu tuuti yuñ tënk ci wane ne fii la sëriñ bi toll woon ndax mooy li sëriñ Modou Fall doon naan sunu borom dafa dem ba dafa sëriñ bi dafa dem ba naan sëriñ bu xaat neen sunu borom ne na dafa wan sëriñ Tuubaa daf koo defal loo xam ne ba noppi wan ko ko ne ko nag maanaam li ma la defal ak li ma la may amatul yenn may yu ko faree kaw da ngaa ndar képp lépp maanaam ndar képp nga lépp dal léegi nag boobu nag mu aajoo sant nag mu di ko cant gis nañ ne it li tax sëriñ bi nu wax ne ci weeru xorom yi la ko tàmbali liggéey moom téere bi ndax warmaal sunu boroom ji rawatina bi mu ñëwee njaareem ba am ñaareel bi atam gis nañ ne wan sur alaya barakatil xorumi wa jumlati suhuuri wax mi xaram yi gis nañ ni dafa ñaan na ci sunu borom mu tasaare ci kawam barkeb weeru xorom yi wajaliyal muna bi yow mi arafa wa xaqi saimihi hab lil maarifa gis nañ it ba tey mu ñaan loolu te diggante fardu rajab boobu ak yow mu arafa boobu te boo tàmbulee ci biir xasida gi da nga ci gis ba mu cay wax ne dafay bind ba ak si foofu yàlla ne ko la nekk sa xel di xalaat mooy ñii dem di aji mboolem luñ aj seeni jàmm yàlla defal naa la ko ci sa mbind mii loola ñëwatu ca kenn booba àgg ba ci far tënk ko nekkoon lu jaam ñi def ci àdduna cim at defal naa la ko yow ci weer dem ba mu yàgg mu ne ko luñ def ci weer sax defal naa la ko ci sa benn bés waaw loolu moom ci xasida gi la ko waxee te ci biir xasida gi la nekk kon nuuru daara yi di daal day mel ni mooy leer gu gëndale àllaxira aljan àdduna ak àllaxira te nit ñi nag ci àdduna lañ jógee jëm àllaxira àllaxira daal kenn xamul lu fa ne waaye day mel ni boo jàngee nuuru daari ni wala nga taqoog nuuru daari ni moom leeral nga sa kër ak aljanna njëkk ngay dem foofu loolu loolu day daal sax ci wér ci lu wér gis nañ ne kon loolu sabab la ci kon li tax sëriñ bi sant bind xasida gi ngir sante ko yàlla maanaam loolu laa tënkoon ne kon santuk suñu la sëñ bi dafa bind ngir sant yàlla waaw ndax daf ne ko li lisxet bi sukkurin lakka fil fardi rajam waaw wa fi siwahu ya mudiman lil ajab kon daf ne ko sere ma yow yalla ma sant la tay jii ci ci teru tel rajab li nak ma tambuli la sant kon xasida gi nak lako tambuli tàmbali sant muy dencub seigne touba damay wax ni lepp lo xamne deg nga ko ci bir lu mak lu nit yalla yi dan wax bu nit yalla yi nak moy ñi nga xamne ay boromi jamono lañ won waye waxuñ ñi siw ni rek ci bëgg lu baax di gurgun. ñi doonon boromi jamono yalla joxoon len ñu yir jamono joxoon len ni wir dog yoyep ñooñe kat da gis ne luñ ma a wax ñoom boroom jamono yooyee lañ wax ak fa ñu àggoon ci seen borom bi sëriñ bi demee ba yàlla def ko mbooleem luñ amoon muy wird muy daraja muy maqaama muy xam-xam yàlla rafaatale ko sëñ Tuubaa ba noppi nekkoon ko nag keneen ko mel ni yow dootu ñëw ci jamono yaakaar naa loolu loolu doy na sant yàlla foofu la sëriñ bi donne rasulullah donn goo xam ne donn gu mat sëkk la ndax léppi sëñ Tuubaa lu officiel la maanaam rasmiyan la fi mu ne mi ngi mel tey ku mel ni benn laa Laden bi muy woote di xaree ka xeex ka nëbbatu sëñ Tuubaa nag moom woote na ba noppi ba noppi noonu yi jógee fenn ñëw euh, rey ko sotti ko ay ay ay tooke ci xeer rey fa lu dul jeex ci nit loolu la sëñ Tuubaa gisoon moom xam ne su nekkoon ak tubaab bi di xeex ak moom danañ ko reyal Sëñ Tuubaa jël loolu lépp nag coono baag métti waag tiisoo gàccoo ko moom rekk nag aw fitam ak njàmbaaram daan nag damay yàlla dama lay ñaan képp ku naroon na faatu su ma takkee xare maa ngi lay ñaan nga def ko mu dund jaamu yàlla su ëllëgatee doon ku gëm Rasulullah sallallahu aw mbooloo mu bari dund maanaam juddoo ci geñoom xool jooju yéene yéenewuma samum réew am aw ay moo tax boo gisee li téye Sénégal ci jàmm secret boobu la te ci biir xasida gi am na fu mu koy ci waxee foo xam ne dafa wax sunu boroom nekk defal nga ma sama réew mi ma dëkkee muy réewum jàmm kepp amaa nag dëkk ci biir la maam Cheikh Rafal waxoon ne lay indi fi na su ëllëgee su juddoo ci biir ñag bi nag loolu nag fa la masala mi nekk bu boobaa nag yàgg naa koy misaal léeg-léeg ci waxtaan ne mu ngi mel ni ku tëj sab néeg defar sab saal ba mu rafet nga ne say doom toog leen bu añ jotee añ leen kaas yaa ngi nii ngeen naan war nga nangam ki nga génn dem ñu tëj kër ga di bëree di bëri ba toj kaas ya tuur tuur ñam wa noonu la mel ñun suñ xamul suñu bopp rek noonu la ñuy yàqale suñu bopp waaye daal sëñ tubaa liggéey na ci àdduna liggéey boo xam ne Sénégal nag moo ci ëpp leen daw raw sëñ Tuubaa muccukaay la sëñ Tuubaa jàmm la sëñ Tuubaa rawukaay la sëñ Tuubaa baax ci lépp nag moo baax ci suñu bopp baax suñu diggante ak suñu borom ba noppi wóor sëñ tubaa dafa wóor boo jàppee ci moom jàpp mën na la waat yàlla na jàpp nga ci xablullahil matin moy buumu yalla gi gëna wër wér dëgg dëgg dëgg kon nak loolu moy sabab bokk na ci bokk ci sabab yi nga xamne sunu gëss may nañu ne motax tax sëriñ bi bind waye benen bi nga xamne moy ci mujj moy sunu borom daf ne ko doto genn doto genn rew bi fii ngay tok nak legi jaxal nga tak yaay tok da nga tok ba lepp dalay fekk si waye doto fekk dara su ngeen demé ci biir xasida da nga ko ci fekk na mu naan ya man hamani ya anil wal makri wal xururi kat sidraaj ne na ko dootuma la jay dootuma la wor dootuma la fexeel boobu nag bi sëriñ bi nag kon bi mu amee sécurité nga xam ne boobu dem dem na ba am sécurité suñu borom te yàlla kat nee na kenn génnu ci ca jamono boobee nag la jël nag defar xasida gi kon daal xasida gi moom kenn xamut lu mu lu mu doon daal xasida lu mu doon léegi nag àgg ci par ne ko tubaab bi doon tiitaroo ko def yëf mu ne ko mu ne ko mboolem seen sag baag seen tiitar bu rëy ba rocci naa sirru ba jox la ko yak sa mbolo fi ne xol leen sag bi ci yoonu murit fu fu fu sëñ li maxtaar génn tey ji mataar yi dar ko lola lol la sëriñ bi suñu borom mo ne ko rocci ko jox ko su fekkon tuba day ko kon mbir bu demee ba ci sët ba day daal tàmbali wàññiku waye li fek jamono sëñ tuba jeexut len du jeex te bu jamono jeexi suñu borom fi dal di jëlee jamono léegi nak lu fi gëna a dañ koy gëna man gën ko organiser lépp lu lu yoon wi lu yoon wi attanul rek ñoo ko ko tegul yoon wi àtt na lépp lépp loo xam ne lii nag euh, àgguñu ca it dañ koo xalaatut wala doxaguñ jëm fa rek waaye Sëñ Tuubaa day gàttalu dox day daje day dëppale nit kii it ak li nga ak bëgg-bëggam gis nañ ne kon foofu lay waxee wa ali wa sahbi wa asibi kulla mubaahin li siwaa yasab kon loola gis nañ ne amatul na loo xam ne nit dana ko ko xëlloo lépp daal lu des ci jamono ak lu neex lu ne moomale ko Sëñ Tuubaa loolu loolaa tax léegi dib taalibe dib murit di liggéey sañ Tuubaa dafa neex di dara ja la cay la cay la cay la cay mucc mooy nga def ko defin wa ngay def boo koy def rek yow fasal ni defi ngir yàlla képp am naa nag sag ba ak la la cay fekk loola moom ci sëñ Tuubaa la ci liggéeyal sëñ Tuubaa la nekk dala cay mayab tiitër may la ca sag may la ca lu bari coono ba it mu téyel la ko ba nga jàpp ne dara nga li tax nga xam ne fi ne kenn du dara ci yoonu sëñ Tuubaa yi mooy ko faatu bu la dencee topp sa boo doon dara rek fi ne sa doom bu dikkaatee dañuy day day day daal di melni kon day rir wala mu yo xam dama am waaye fi ne man naa am sax sa doom bu juddo présence ci mbolom mbolom bu bari yooyu ñi ñi xamoon deug nek seigne touba amna ci ñooñ di len seigne touba dewe ba yewi len dëppale wu leen mbolo far ñom dañoo seexlu woon mbooloo waaye sëñ tubaa duy na ay mbolo yu dul jeex yo xam ne tabarkal kon ci circonstance bi le seigne touba defé xësid ak nooru dara ni ñu soog dugg ci xësid ak nooru dara ni xam ngeen ne moom lépp lu mu wax rek da koy ubbi ko salaatu ala nabi te xam nañ ne salaatu ala nabi yàlla moo wax inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ndigalul yàlla la sëñ tubaa nag li taxoon ma wax ne dana jëfandikoo uslubul ilmi uslub bi gën a rafet ci uslub yi da doon xamle da doon xamal nit ñi ne leen rasulullahi mii ngeen di wax da ngeen koo bëgg mom ngeen sopp ak nangam ki nangam kay leen ma wax leen nu nit di jariño ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni cheikh ibra fall wane ne seigne touba mi day jariñul aduna kay leen ma wax leen nu ci jariñ gëna gaawé nu ci jariñ gëna gaawé motax seigne mom dafa ñi ñi jubal mom dafa fital rek jëm ci seigne beur ñen ñi jaar ci yoon ya mom mu fital won leen fi lañ jaar seigne touba dafa won nit ñi ne leen rasulullah li la mako xamne dañ ne motax ñu bind aduna bepp nga ne bëgg nga ko ba noppi lu bare bare ba di la gàllankoor day daal di mel ni da nga koo xamut xam googe nag ñàkk xam googe nag la sëñ Tuubaa doon dindi moo tax muy wax ne mubaarakul ibtida may moonul intiha aw al iqtida kon léegi waxut ne intiha ndax xasida gi lu baaxam du jeex waaye daf ne ak roy maanaam ni nga xam ne barkeel na ak tàmbali nga tàmbali di liggéey ci xasida gi tàmbali di taqoo xasida gi nuuru darañ waaye comme du jeex nag moo tax mu ne wa di daal léegi nag képp ku xeñtu mbóotam ku ko roy yi muy digle moo tax yam ca jublu ak nam ko digle woon ne nañ koy jàng man nag xaw ma ku ko mokkal waaye man ku koy jàng képp la waaye ku ko am képp nag moom loo la nga bëgg moom sa ajo moom fajul waxuma la nag leneen lu ci aju ci biir moo julli ci yonent bi te yonent bi moo ne ku julli ci man benn yoon yàlla dana ci julli ci yow fukki yoon loolay danañ ko bàyyi mu waxal ko boppam moom bi salaatu ala nabi li tax mu ubbee kooku wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbi wa sallama taslima loolu la ubbee xasida bi mubaraku ibtida may moonul iqtida te jàppal ne lii nuy wax ni suñ la ko dee wax da ngay xalaat kero ba sëriñ bi jëlee xalimbaam toog jël aw xëyit weex tàll jël jël diggam toog di ko di ko di ak borom xelam mu rafet ma xam-xam baag jota diga mu toog di bind lii mu tàmbalee ko alhamdulillahi alladi yusalli ala nabil muntaxal musalli sant yàlla ndax sant yàlla moom la yàlla ubbee alfatiha te mooy mooy nee nañ mooy satul yi mooy umul kitaab mooy ndeyu téere bi nee nañ mooy juróom-ñaar yi nga xam ne moo tax sëñ bi di wax sabun taqi abwaaba kulli naari tajoodu bi sabun taqi abwaaba kulli naari tajoodu bi wa dinaar moom xam na ne mooy tëj bunti sawara yi tey ubbi bunti wërsëg yi yaakaar naa ne loole alhamdulilahi rabbil alamin lay ubbi ko yàlla di ca sant kenn wax ko waaye dafa jël làmmiñu nit yàlla dafa jël ci làmmiñu nit ki di ca sante boppam waaye loola daf ca doon jàngal nit nu nit ki di jaar su bëggee am digganteem ak boroomam ngërëm moo tax boo ne alhamdulilahi rabbil alamin rek am nga ca yiw woo xam ne kenn xamul nu toll te soo ko waxee wax nga wax yàlla yàllaa ko njëkk a wax yàlla nag buy sant boppam ci boppam du du njariñ waaye lam lam ak jubloom mooy xamal nit ñi kan mooy moom ndax xéewal yi nekk ci àdduna ku ko xalaat war caa sant sa borom moom loolu la bëgg nit jariñ ca moo tax mu tudd xéewal ca kanam ci saar woowu ci fatiha mi nga xam ne mu ne alhamdulillahi lati yàlla lay xam ne di mu ne maa ngi xam xamle yàlla mi nga xam ne yu salli ala nabi moom suñu borom day day julli ci yonent yàlla muhammad julli nag mën nañ koo firi ab liggéey ndax li ngeen def tiim qasida jël saw lamiñ di jàng rek di yëngal ki xamul bu la rombe def naan la waa jii de man xaw ma li muy def nangam ki nang waaye loolu liggéey la ndax yaa ayyuha lazina amanu zkurullaha zikran kasiran su fekkoon amul njariñ yàlla do ko wax ci alquran tudd leen yàlla tudd yi na bare bare bare bare sëñ tubaa gis na ne nit dafa am luñ koy fëkke ci àdduna muy fexe ba soxlaloo ko ci boppam soo nekkee nag di jàng xasida yaa ngi déglu son bu neex yaa ci am tiyaabo yaa ngi ci déglu loo xam ne mi ngi raxas sa xol ci ay tooke waaye it da lay jéggal say bàkk day lay faral say ñawteef di la yëkkati say dara ya waaye di la gën a jegeele ak rasulullah ndax salatul nabi day jegeel day jegeel jaam bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam sëñ Tuubaa ko waxoon keroog ba muy bëgg gonte jolof di ñibbi si njaareem waxoon na loolu yi sallallahu wa sallam alayhi llahu fi l ali wa sahbi wa man wala xasida gi nag sabab si mooy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam xasida gi ci xasida yi salatu ala nabi la waaye yaakaar naa ne ci yi mujj bind ci gën yi gën ci salatu ala nabi la bokk moo xasida gi wa amara al amlaka Aidan bis sala alayhi sa'idan bi salika wala mu ne yàlla moom it dafa digal malaaka yi ci laay ji ñu waxoon ci ginnaaw ñoom it julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli gogo buñ ko jullee ñoom malaayka yi ndigal lañ ca am ci seen borom dana tax buñ ko da leen di daraja moo tax kon nit it bu ko defee dana wax lim koy defal moom ci kanam summa ilayna wajjahal xitaaba loolu nag xitaabu takrim yi lañ koy wax mooy yàlla dafa jël waxante boobu waxante teraanga la yàlla daf nu koo defal noonu léegi nag mu ne waxante woowa nag yàlla waxante woon ak malaaka yi ne leen hee kaay leen julli ci yonent bi sallallahu alayhi sëñ bi nee na waxante woo yàlla da ko wëlbati daal di koy jëmee ci nun nag ilay naa jooju dafa dugal boppam dugal ñëpp nun ñi nun ñi nga xam ne yàlla dañoo sàkk te te digal ko waaye waa koy mu ngoog sax takarruman wa anfusan ataba nee na loolu daf koo def nag ngir teral ñu ko bu ñu waxee nag yàlla daf koo def ngir tat yiib ñu bare bare bare tat yiib mooy dalal sam xel ah na sab xol sedd xamal ne lii soo ko defee amal na la solo kon ndekete julli ci yonente bi sallallahu bi ko yàlla diggalee malaaka yi diggal ko nit ñi nee na yàlla dafa mel daf leen ci wax ne leen na seen xel dal na seen xol sedd kon kay lay daal di mel ni kon lool la la sëñ bi bëgg a defal nag daal di lay wan yoon yoon wu gën a gaaw te gën a gàtt waaye ndekete li tax nit war a gërëm sëñ Tuubaa mooy tax na ñun fuñ toll di julli ci Rasulullah sallallahu alayhi yàlla sàkk na malaaka moo xam ne dara du liggéeyam lu dul taxaw ci buntu gémmiñam nit ki bés bu set bu nit ki ne salaatu na bi rek mu daa di koy bindal daal ne ko diw de wax na nangam daal di dem soo julliwul ci yonent bi doo am benn liggéey kon ndeke am na ñoo xam ne malaaka dana koy taxaw seen buntu gémmiñ ba jant bi sox du leen bindal benn araf ndeke la tax mooy du julli ci yonent benn yoon waaye kon taalib bi sëñ tubaab bi jàng xasida moom bés bu set ñu ngi koy bindal lu dul jeex kon yi woowa ku la ko defal amuloo fa yoon loolu tax ñun kenn amul pay sëñ tubaab moo tax mu ne sëñ bi daal di wax ne faxumtu loolu masuliye la responsabilité bu mag la mu ne kon nag ma daal di jóg ta faa bi dafay wane dafay tegtal ne bi yàlla digale lii mu xam ko rek dafa daal di gaaw jóg ca ca saase rek dafa daal di gaaw jóg ca fa xumtu xaa ilan ma am ti sali ma daal di jóg nag ba noppi daal di wax ne maa ngi wax di yëkkati di di di informer nit ñëpp ànd ak nag al imtisaalu mooy man de maa ngi def waaye li may def kat dama ko dëpp ak ngërëmal sunu dama ko dëpp ak ndigalul yàlla maanaam làmbatuwuma góorgóorluwuma fexewuma yàllaa ne ma demal defal ma lii nee na ma wax leen ne leen nag bi ma koy def dama ci am ndigalul yàlla ma julli ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa xumtu xaa'ilan ma am tisaali amri jamiilin ja amri jamiilin jàlla am misaal yàlla mi nga xam ne kenn mësu koo misaal daal di nag tàmbul nag daan ne yaa amiran yaa arfu ni daala e eh yow ki nga xam ne yaa aji digle ji waaye wala maa yi dañuy tànn ni foofu doo la neexee nga nga booy waxante ni su la neexee nga dàmm ko yaa muhammadu su fekkee ne nag Itirar dafa am manam lori way ba nga ag ci waran war war waxe ko nenen dañ lay may grand-mère may na la nga def ya rajulan manam nga def nonu wala nga bolé nasab wala nga bolé nga dam mom nak dafa tam fi nasab motax mune ya raj ya amiran waaw ya amiran yow aji digle donun kuñ xamut de dedet day taarifal dalay lay won ne la maarifa la ki may bëgg waxat waye waxin wi mo nur ne xamul ki waxat mo ne yow aji ya amiran yow aji digle waye ki muy waxat xam nako ko jëmmi sunu borom la lolu tax mu tan ko nak nasab ko fi bi an nusalliya bi am nusalli ala nabiyina muhammadin babil ula yow ki nga xamne ben buntu nga am yaane man ben buntu la moy buntu bi nit di amé ay daraja di yëkëti ku jëm ci kaw légui nak buntu ba moy rasulullah sallallahu alayhi wasallam nabiyina muhammadin babil ula ilayka minni busarun muxaddama waaw fii xidmati lazil qadim muxaddama kaay nag yow sunu borom ilayka mbir nii dara dàqu ko ci àdduna man de maa ngi liggéey liggéey boo xam ne la wax de li tax nit war a fonk liggéey sëñ Tuubaa liggéey la fi la fi jariñoo foofu baatu liggéey fii xidmati la wax maa ngi liggéey liggéey boobu liggéey nag mooy loo xam ne da koy def keneen di ko def keneen di ko def jaamu yàlla goo xam ne dafa ubbeeku maanaam ibaada mutlax ko xam ne dañ koo itlaax googu nag lu tax njariñ la du ñew ci yow rek ndax niñ ko xé ni la njariñ la di saro motax mu jëfëndiko fi khidmati lati qadimu xaddama yow yalla yow ki nga xamne ak yàgg ji yow ki nga xamne kat dañ ko jital man ma ngi jog fasiyene ko liggeyel defal ko nak ben mu lo xamne khamne dama ko jital waye yakarna ne loolu lay jëfëndiko di ko jëfandikoo lii dama ko jital ci sama mbir rek manam man dal damay mindlu waye sama liggey ñëwagul kon lenn la ci li nga xamne dama koy def rek jital ko yàlla salli abadan wa sallima ala nabiyyika sirajil ulama day melni kon ki wax allahumma salli ala sayyidina muhammad day digal yalla waye digalul yalla day jëfé ndigalul yalla day jëfé ndigalul yalla kon bépp jamm bu julli ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ngi joxe ndigal yalla suñu xolé nak dañu xamne nafsu bu ko arab waxee dana firi ruh dana firi ruh waaw su ko defee nag kon dana firi dana dana firi xel dana firi ruux waaye daal yàlla daal def na ko ngir nit ñi mu wax leen ne leen kaay leen ma jox leen lu leen lu tax seen xol sedd sayidina muhammadin wal ali wa sahbi wal fil ali wal maali jul ci yonente bi nag salaahu salaam moom lay wax lu mu ne adada maalumaati rabbina al alim yaa man bihi wahabta li xayra ulum sëñ tubaa kon léegi mi ngi leeral nee na yàlla jox na ma xam-xam bi gën ci xam-xam yi léegi kon ilmu naafi yàgg nay bind su ngeen demee ca euh, tasawudu subaan da leen te fekk muy leeral xeeti xam-xam yépp njariñ waaye ndekete moom fii waxaat na fi lii te boobu njariñ la mu ne yow ki nga xam ne jox nga ma xam-xam bi gën ci xam-xam maa ngi lay ñaan nga julli ci yonent yàlla muhammad lu tolloog lépp li nga xam kon loolu julli googu rek julli la goo xam ne peeg na lépp loolu ndax lépp lu yàlla xam kenn xamul nu mu doon julli googu kenn xamul nu mu toll kon ci dafa ya rahman wa tusallima ala allati taqdimuhu qad ulima fo da nga di jëfé batub rahman di ngeen ko ci gis ya rahman ya rahim lu bari mu liko ci wax lu tax mooy yàlla dafa jël yërmandi aduna ak alakhira indi ko ci melo wo tur yépp tur yalla lañ wa yàllaahu buñ ko waxee ismu sad la manam jëmmi su jëmmu lay dak waye wépp tur wu ci woowaat ci bir aw melo la manam xaj la ci tur wo waye nak dañ ci tur yalla yi su nga demee ci asbahani ni mu ko leerale daf ne doonoon ne nag bu ñu leen waxee ci turu yàlla moom aw meloo dafa tege fee jëmm ja tege fee déedéet nee na li li allahu am am na ko ba noppi tadiw melo ci moom bu ñu waxee ne diw de dafa baax mbaax ga melo la ci moom waaye bokkut diw waaye nee na bu dee yàlla moom da ne yàlla da nga ne yàlla ci boppam rahman ji day rahman ba noppi am melow rahman nag xaw ma dégg nañu ko mu déet bu baax a baax ndax walillahi asmaul husna fad'u biha yàlla moo ne am naa ay tur al asmaul husna mooy tur yu rafet yi léegi nag dafa digle na nañ ko ci woo maanaam buñ ko ci woo ba pare di ko ñaan di ci def ay munaajaat ak yooyu di allati taqdimu qad ulima mooy ñëpp xam nañ ne yonent bi la yàlla jiital kon nag dañ koy jiital ci sunu lépp lu ñuy def sayyidina muhammadin wal ali wa bi fil ali wal maali bokk na ci li tax sëñ bi am worma mooy du tayal ci tuddu batuk sayyidna muhammad da ngay gis téere yu bari bu ñu bind dañu tayal ci sallallahu alaihi wasallam ba dañ koy far def saat ay lamim nga xamne banyak pour rek baña baamu wat salatu gi ta xamul ni salatu gi boko def ci téere bo noppé fi ne malaka mi ngi ci sa bu fek julli gi farut malaka ma taxawon bang koy bind mi ngi taxaw dila ñaanal dila ñaanal dila ñaanal ba yowal xiyam léegi nag rawatina nag bu buñ ko dee jàng far kon ci afa sëñ Tuubaa kenn xamul nu mu toll kon benn téere bi képp bu ko defoon rek lu mu digab taalibeem dana ko gis dana ko am waxuma laag nag boo xam ne dundam gépp loolu la feese waxaat ne nag sayidna na wal ali wa sahbi fi al mali wa huwa wa huwa ayatul ilahi al kubra al ayatul ilahi al kubra gis nañ ne suñ xoolee ci ci li suñu borom defal rasulullah sallallahu alayhi wa bokk na ci ayatul kubra bu ngeen demee ci surtu najm di ngeen ko di ngeen ko di ngeen ko ca gis bokk na ca mooy euh, fii yàlla yóbbu yóbbu yóbbu yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bokk na ca barab boobu xaaba xaw sëñ bokk na ca barab boobu sidratul muntaha euh, yooyu bokk na ci euh, araf te yàlla day wax ne mbiri àdduna yépp ci araf la nekk bokk na ca kursi yi bokk na ca aljanna bokk na ca ñooñ sawara ña fa nekk bokk na ci aljanna ak ñoñ ñooñ aljanna bokk na ci sawara ak ñooñ sawara bokk na ci mala eh, yonent yi yàlla ma sa yónni war na ko yonent eh, yonent bi salaa salaam bokk na ca xam na bàkkaar bu ne lu tolloog lañ ci mbugal nit ki yawmal xiyaam moo tax léeg-léeg nga gis ci xadis yooyu ñëw ci ayatul kubra yi di wax ne yonent bi de gis na fa nit koo xam ne léeg-léeg muy def nangam gis na fa kooñ juutal gis na fa koo xam ne làmmiñ wala ñu xëcc gis na fa koo xam ne kii dañoo jigéen surtout jigéen ñi nag gis na fa koo xam ne ñaari ween yi lañ ko takkale ko mu juutu gis nañ fa koo xam ne kii day dugal boppam ci pax te du ca xaj gis nañ ci koo xam ne day dóor boppam gis koo xam ne day dagg boppam gis koo xam ne dañuy baxal cin ba mu mu di ca dugg yooyu yëpp xeeti mbugal la yoo xam ne yii baat boo jëw nit képp la koy dugge yi ci bu dee wàllu jigéen ñi jigéen joo xam ne foo ko fekk muy toilette toilettul jëkkëram nga xam ne koo xam ne ki day jaay boppam koo xam ne kii dafay dafay dafay dafay dem ca wax ko lee dem ca wax ko lee nga xam ne day day dem ba déformé formé bopp mbaam xoox jëmm jëdd mel ne yooyu yëpp loolu lañ tuddee kiimtaan yi suñu borom yi yu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam gis foofee ci suñu borom waaye ci gën a yéeme loolu moom nit mënu koo wax kenn ci àdduna sidratul muntaha euh, foofee la sunu borom déeyaale ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu àggee ci xaaba xaw sa yi barab barab la boo xam ne bi foofa daal fa la lépp lépp lépp yëpp yonente baa fa ma sa dem loolu kon mu ne mooy ayatul ilahil kubra waaw yooye ya fa ne ka ko gis nag mooy kan ka mën a dem ca yooya ba gis yëpp moom te kenn mënu koo gis munu ko nettali moom rek moo ñëw nettali kon kooku mooy yonente yàlla moom sallallahu alayhi na moo tax sëñ Tuubaa ne moom daal moom bi nee na gis na mooy ayatul kubra wa wallati wa huwa ayatul ilahi al kubra jabra nee na kat moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màng na jëmee ci keneen kudul man liñ tuddee aljabra aljabra dinañ ko wax tasbiitu wuqu maa yuqadiruhu llahu bi yi wa bi xokmi fii xadaa'ihi wa bi xokmi maanaam jabru dinañ ko firee jàng al kasru wal jabru di daan maanaam kasru mooy damm jabru mooy jàng mooy mooy li koy li ko li ñu koy wër di ko ko fajee di ko ko defaree jibaar mooy mooy forcer nit ci dara léegi nag mu ne loolu yàlla dàq na ko waaye lépp loo xam ne arab yi dañ koy firi ne saxal lépp loo xam ne li yàlla dana ko dogal ci atteb sunu borom ak dogalub yàlla sëñ Tuubaa nee na yàlla dàqal na ma mu dema naqari ñu dema ca forcer nee na lépp lu yàlla def neex na man daal mooy nit koo xam ne da nga jébbal sa sa borom sa lépp rek wax ne it ne wa salli yaa rahimu wal tusallimi ala nabiyika sahiril alami kon léegi jëfandikoo na foofu it ar rahim nga gis asmaullahi lxusna yi ni muy duggee ci ab yaatam yi muy def kon mi ngi way waaye mi ngi sabbal yàlla waaye mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi salaatu ala nabi gis nañ ne mi ngi mi ngi tawasul ndax mi ngi mi ngi woo sunu borom gis nañ ne mi ngi def ay duwaa mooy di ñaan yooyu fi ne tàmbali nañ koo gis ci biir xasida gi sayidna muhammadin wal ali wa sahbi fi l ali wal maali yaa man yaquud li musallin marra alayhi asran qad tuniiru birra foofu nag lay leeral nag julli ci yonente bi salaa sallam muy wax ne nag yow ki nga xam ne yow yàlla mooy mu ci munaadaa yi muy jëfandikoo yow ki nga xam ne yow yàlla yaay def bu nit ki jullee ci moom benn yoon musallin mooy aji julli ji marra mooy benn yoon alayhi asran qad nga daal di koy julli ci moom fukki yoon takat soo jullee ci moom fukki yoon képp xam ne kuy wut lu baax ba yàlla dogal nga julli ci yonent bi benn yoon mu wommat ki nga xam ne wommatal na julli na ci yonent bi salaa salaam yàlla daal di fay ko julli ci moom fukki yoon ndax dafa delloo yonent bi ruuxam yonent bi fay ko mu julli ci waajooja malaaka yi jottali ko ko su ko dégguti ruuxam dana ko dégg kooka nag lépp lu mu def ci lu baax xam ngeen ni sëñ Tuubaa nee na dana ko leeralal lépp jëpp jëfi mbaaxam jëpp jëfi mbaaxam da koy daf koy leeralal ndax moo tax bir euh, yonent bi lay wax ne sallallahu alayhi wasallam ne ngërëmul yàlla mi ngi ci birrul waalidayni birrul waalidayni mooy def lu baax ci sa ñaari way jur min abaril bari an yabural du ala bir di wuddi abihi bokk na ci it ak mbaax nit ki baax ci ci ñi nga xam ne képp ko doon sa xaritu baay waaye gis nañ ci it euh, bir biraar wala barara gis nañ baat bi lu bari sëriñ bi di ko jëfandikoo bir barara wa buruur gis nañ ko ci lu bari mooy ataa buruur lépp jaamu yàlla gooy def nga xam ne ak topp nga ko defee di ca sàkk lu baax day dugg ci baat boobu abraar ci la bokk euh, buruur ci la bokk muy xeet jaamu yàlla abraar nag mooy nit ña ña nga xam ne mooy way baax ña baar gis nañ ko ko lu mel ni ñuy wax mu muhammadul amin baar aji baax muy ismu faayil euh, kii ba di barara jamo jamu ba muy woy baax ña ñu baax ñoo xam ne ñu baax lañ gis nañ loolu hmm. gis nañ it baraarit gis nañ ñuy binde boo bindee euh, bariit jamoo baraarit gis nga it boobu baat bu bëri lañ ko jëfandikoo waaye liñ ci jublu ci baat mooy dafa bëri lu ko sëñ Tuubaa di jëfandikoo baat bi kon birru ak abraar ak abraar ak buruur moom la sëriñ bi ëpp lu muy jëfandikoo moo tax mu wax foofu daaneel ko ci bayit ci ci ci foofu ba daaneel ko ci mujjug bayit bi mu daan ne wali tuwassili busaaraatil xadar wali tuwassilu busaaraatil xadar mustaxsihan li xayri naxwiyal kadar wax ne suñu boroom nag dogalub yàlla yàlla dafa jël désigné ci dogalam ne saa bu nekk daal wax na ne dogalub yàlla du jóge ci kaw jëm si suuf di ci man bépp lépp lu yàlla dogal mu jóge ci kaw jëm suuf rek day indi mbégte ci man loola àgg na ni yàlla nee na dogalub yàlla bi nag day àggale ci man lépp luy mbégte ba noppi di ma dàqal lépp luy ay lor nëx nëx nag la jëfandikoo foofu nëx nëx nag bu ñu ko waxee mooy ci ndox lañ ko gën a xam kadar waaye bépp mbooloo moo xam ne dañoo juyoo ci wax wala indi fitna ci bi seen biir ba coow am gis nga bu kër kër amee noonu pënd bi di jógee fitna bu jógee rayante lu ne mën naa bu dalee lépp dal daf ko nuróole ak ci loolu mooy dëgg-dëggi euh, baat bi ya ya rahmaanu ya rahimu ya man bi jamilin naafiin qad sum ya daal dinay tawasul wala suy wax sunu borom di wax di ko woo yàlla di ay munaadaa di woo sunu borom yàlla yow mi nga xam ne yaay borom yërmande ñi nga xam ne ñoo ne ci àdduna muy bàyyi ma yeeg garab yeeg lépp lu ci àdduna waaye ëllëg yow mal xiyaamit yow ki nga xam ne yaa yor li rafet yow ki nga xam ne yaa yor li rafet te yow lañ yow rek yow lañuy ñu wooxe naafiya mangi lay ñaan kon salli bi taslimin xolal mbalaan yu rafet yi mu àbb dafa jël sifatu rahma ñaar yoon yep yi mu am sens yep jël al jamal jël sifatu euh sifatu jël al an naf jël na mbolim xéti ñariñ yi yi am teug ci ismu fa'il ci nafi'u ak jamil muy fa'il fa'il ak yooyu dari koy ab mbalaan yooyu jaar ca def ca tawasul ngir yàlla ngir lan ngir yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi rek maanaam li mu bëgg a wax daal lay waajal pour bëgg yàlla nag jaar ca loola li mel ngi naan iwaaj maanaam iwaaj yow mooy ëmb nga ca yow mii yow teeg maa defal nangam waaye loolu lu mu nga ko salli bi taslimin bi lan tihaa i anni ala nabi silbaha i maa ngi ñaan yow yàlla nga julli ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam julli gu dakk yonent bi nga xam ne mooy borom taar ba ku amoon màddagal ku dar ku rafetoon sayyidina muhammadin wala alihi wa sahbi fi alimaad yaa man yuwassilu li si asrin mia bi jaahihi yaa man xama an sayyi'a yow yàlla yaay def képp koo xam ne julli nga ci yonent bi fukki yoon fukki yoon jublu ci la wax ala nabin kaana yamxu bi xasan suu an wa yuxisu saida min wasan nee na ku julli ci yonent bi benn yoon yàlla daal di julli ci moom fukki yoon kon loolu bëgg a wax kon wax na ko ba loola léegi leer na mu daal ne nag ci yonent bi nga xam ne lim nekkee mooy far far day far day jël lu rafet fare ko lu ñaaw lépp lu ñaaw rek moom daal bu dikkee day jël lu rafet fare ko ko ba mu jeex takk gis nañ ne it bépp barab boo xam ne bii mënee su fa jaamu yàlla boo jëloon tey ji sab gopp gas ba mu xóot nga keef loola dugal ci biir suul day daal di neex a jàmm yàlla suuf sa nekkoon ci biir nga solli ko tasaare ko des fay daal di mën a jàmm yàlla noonu nag suuf mel nga xamne ne noonu la sëñ tubaa ja ca gabang bam fa nekkee gas ci souf leen ci kaw jël la won ca kaw soti ci souf tambuli di ca julli samp cay bantam noonu ñuy def nak ba meuna julli non lañuy def nit ku yàqu ba xey nit ka bax nit ku nek suñ defare sa jikko ju ñaaw ji ba sa jikko ju rafet genn rek nga daal di baax kon gis nañ ne wa yuuxisu saida min watan nee day mel day fekk waaji nara taxé jaaru yoon mom mu melni ni dafa gëmmeentu watan moy bu ñëw fekk la fa ne la pëng pëng pëng pëng jógal maanaam ah jógal bul sàggan ku sàggan gaa yi dem bàyyi la kat day daal di mel ni noonu la noonu la noonu la noonu la mel nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la def nee ma kon amul moroom amul moroom moom kan yonent bi sallallahu alayhi wasallam safiun di xabaram man alayhi miata sallaxtawa alfan tafuuqu fiata gis na daal ne wax ne képp koo xam ne mom ki nga xamne bu yomal khiyamé day mom man kat ci turuul la njit la jaar tay ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam dal ku julli ci mom ben ñaar témir yoon da nga am ñaari junni batay rek ni nga lay misal table de multiplication la mom dal da ngay am ben ñu tégal la ci fukk nga def fukk ñu tégal la ci ñaar témir nga def ñaar témir ñu tégal la ci ñaari junni kon yaaka na lo am njariñ la waaw xolal nak kon mom ñaata yoon la julli ci yonent ci sallallahu alaihi wasallam ak ñaata yoon kon lañ koy fay ak niñ ko misaale woon ci ginnaaw léegi mu wax ne wa huwa lati arsalahu man xalaqa li xalqihi bi rahmatin wa safq ka ko bind ko yebal ci jaam ñi rek kon jeex na tàkk ka bind ko yebal ci jaam ñi bi rahmatin wa safaqa waaye dara sabab si mooy lan ku la waxoon tey laaj la ne la waaye luy sabab yàlla bind yoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam sonn ci moom def ko nii def ko naa neel dara taxut lu dul al rahma wa safaqa mooy yërmande ak cofeel rek ak ak ñëwent gis nga kon ni yonent bi kon moom la yàlla doon wax ne innama ana rahmatul muhda moo doon wax loolu ne man ab yërmande laa ci jàng in wa ma arsalnaaka ila yàlla yi wax ko ne ko wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin defuma yónniwuma la ci kaw suuf lu dul nga yërëm alam bi rek muy nit ñi rek nga def di yërmande ci ñoom kooki daana wax ne irhamu man fil ardi ko man fi sama yërëm leen li ci kaw suuf yàlla yërëm leen yàlla mi nga xam ne moo am yërmande kon dañuy gis ne waxu la si waxu la si liman alayhi alfa sallal muna wa fil jinaan yulfa Sëñ Tuubaa ne na ko julli ci moom junni moom kenn xamul looy am moo tax su ngeen demee ci fi muy bindee fi daaw di ngeen gis ne day wax ne ku julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam junni ku sa mbokk faatu jàngal ko ko léegi woy wii day firndeel loola fi ne woy wii day firndeel ne kon Sëñ Tuubaa moo ko wax man ku ñu wax sëñ euh, alaaj baa ma Seck moo ma ko jox Sidna Aliou Seck mooy juróom bokk na ci ñi nga xam ne daanañ bindal sëñ Tuubaa fekk naa kaamil boo xam ci ama tël sa sin mii ñuy waxtaane mii ñuy wax def mii mu tàmbali màggal gi ci la ko bind yóbbuloon ko sëñ bi damaa xamoon sëñ bi da koo joxoon ab barkeelu waaye kaamil ba jox na ma ko ma gis ko gis dat bañ ca da danaan def noonu mag ñi dañ daan bindal sëñ Tuubaa noonu mu ne nag képp ku ko def boo demee aljanna da nga ko fa fekk waaw yàllaahu salli abadan wa sallimi ala nabiyika rasuli sulami yonent bi salaa salaam mooy kerkeraan ku bëgg a àgg ci yàlla sayidna muhammadin wal ali wa sahbi fi laali maali moo tax damay faral di wax léeg-léeg ne mag ñi ne dañuy wax ne ku bind na way na ñu ne waaw waaw waaye moo xam ne sëñ Tuubaa lim bind tudd muhammad képp lim bind turu muhammad képp ku ko dajalewu def koy téere mu ëpp mbooleem lu mag ñi bind di way ko rasulullah salaa salaam tur wi rek tur waxuma laa nag ay téeram na kon yaa man bi jaahi xabilta xalami wa sumtani an maradin wa alami kon sëñ Tuubaa daawut tawat du faju docteur yàlla daf ne ko woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam laa la bi ne ko maay sab docteur boole naa la ak alxuraan moo tax su tawatee alxuraan rek lay saafaro moom rek lay ubbi daal di wér ci saafara moo tax musta faju kenn musta woo docteur ne ko kaay defal ma leen ku am juróom-yaari at ci àll te musuñu wax ne docteur sàngam seeti na la diw sangam mo la doon togal koka foko meuna tek ci aduna rek wessu nako seigne touba la ci sunu borom yi wax ne sunta li amar ibn walim dane wali bihi wahabta fi aadati ma khaba an akabiri salat xana kon legi xam nga ni mi ngi tambule wax nak ay mbiri bopam motam la nuru dari ni denc mag la denc la bo xamni bu yéeme na dafa ni sunu borom kat may nga ma ci sama aada aada moy lan ma tok di waxtan mbamay dem mbamay lek mbamay nan may yoyu xeet moy ada dem na ba ne ko defal nga ma ci lo xam faduma jaamu yalla yo xam faduna akajur na sadaq manam ñe gëna mag ci sang su baax sañuy waxtane di netli seen seen càng ak seen bax señ tuba neena man samay aada rek dem na ci jamono yoy ma nekk jarim agna kawena kawena na seen ak jaamu yalla ñoo seen lepp kon nak day daal melni kon kenn xamutoon lu mu doon mom hmm. mu daal di wax ne wali bi xat jutta bil kitaabi bila makarihin wala itaabi yàlla daal di koy defal bi bijjil ko nag ci téere bi muy alquranul karim lépp loo xam ne lu loo xam ne makarihu dunya maanaam luy lu koy naqareeti dootu am ba noppi yeddali dootu ci am moo tax soo gisee fi ne lépp yaskuruhu kulliya bil kitaabi bila muaadatin wala itaabi lépp loo xam ne suñ Tuubaa way na ko dara la juñ ko jox xasida gu muy wayaat dana ko ci baamuwaat wayin waa du bokk waaye yii bokk na yi nga xam yàlla defal na ko te li gën a yéemi Sëñ Tuubaa mooy lu ko yàlla defal du ko fàtte te suy waxaat gën a xasida dana ko ci dugal ci biir loolu waxaat ko daan ne wasalli ya rahmaanu sarmadan ala sayyidina muhammadin yaa man ala mu julli ci yonent bi yaa man kitaabaka al asiisi salaba liya wali idaaka turan xalaba amul kenn ku ko mas ci àdduna alxuraan a toog fii di xool rek moom alxuraan lépp lu neex Sëñ Tuubaa mu rekki ko jox ko indil ko ko képp ku nekk ci moom di ko liggéey la bala laa fay day jaar ci seigne touba bam ndigal bam digal ko ko nopi lola taxal mu wax seigne ma ñaaw sëñ ma ñaaw si la nan ko ana ci lu ngeen nekkon bam fi joge dem bàyyi mu ne ko am ah, bak xana di ñaan jang alcorane di dajje di ñaan nga baña ñew day doomi soxna ci soxatu wax na deug loolu muy deug nit ko dëggu nu lay mel nit bu du lam mu ne ko mm, du ngeen tumal alcorane moy liñ daan ñaan ñew na kon kon lañ doon ñaan amul mu ne ko mbaa du ngeen tumal alcorane mu ne ko dedeen mbak mu ne ko la cay def ak dindi dama ko yóbboon ba may dem ci géej ga dama ko àndoon booba saa bu nekk rek ku ñaan ci alxuraan su namee am ñaan nga day jóge ci moom loolu te foofu ngay xam ne sëñ Tuubaa baax xoolal ñaata nit ñoo xam ne ñi tey jii maanaam mbirum sëñ Tuubaa neexu leen te ñu ngi jullee ko jàng te kat lay faj seen aaju sëñ Tuubaa lay jóge ñaata nit fi ne ci Sénégal gii sax rawatina fi ne am na ñoo xam ne ñii bëgg tudd turu sëriñ bi rek bëgguñ ko buñ la gisee nga dañ lay mere wala dañ lay te yow moy seigne touba fare gi fare yàlla kepp fi ne ñi nonu yalla ñepp ab jullit rek lañ bañ gis jullit fi ne ko ko gis rek da ngay daal di da nga koy bi bañ jullit dëgg fi ne buñ gisee jullit buñ bëggee lu ko naqari dañuy dem ci alxuraan yaq te alxuraan yoon néew ci ndax lu tax moy li jullit farek yalla moy motax tax di tere nan bu len len di ŋaañ ñi di len wax dara su ngeen ko waxe ñu saga yalla yalla ne bu ngeen len di wax dara ñu may saga dari commencé taxaw wax saga yalla wala saaga yonent wala saga rasul wala saga alxuraan loolu nag sëñ Tuubaa nag bi mu dikkee day ñagab loolu di suturas loolu yàlla dogal na nag fépp fi àdduna tey jii xoolal dëkk àdduna yi fu ñuy defee loolu ngir taalibe sëñ Tuubaa fa ne di fa màggal ñu di fa tuur leeri xasida yi di fa jàng alxuraan ay yooni yooni yoon yu dul jeex yoo xam ne bul woon taalibe sëñ Tuubaa booba dëkk du am benn kaamil bu alxuraan bu ñu fa benn kaamil te loola tey mën naa seere ñooña mën na faa def tey tubaab yooyu ba tax ñi ñi ñëw nga xam ne kenn ku ci nekk tey sëngëm yàlla foofu la fa mu jógee ci kon sabab li ko sabab mooy ci Serigne Touba lay jóge ndax gis gu ñu gis talibi Serigne Touba yi di def yu baax yooyu kenn xamul nu mu toll ci àdduna mu daal di wëlbati ko daal di waxaat ne kon waxaat ne salatu daal di waxaat ne وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يرفع يلا صلي أبدا وسلم على نبيك رسول السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال يا من بجاهي خبرت خلمي وصدني عن مروان ah kon waaw mu ko waaw daan ne ah que maa ngi woon ci alxuraan léegi nag xoolal bi mu tuddee alxuraan yaa ma ni kitaabaka al aziza dafa dox alxuraan tudd ne téere bu tedd bi rekki na mboolem lépp jox ma ba noppi nag notal ma samay noonu ñëpp dégg nañ ne kaamil boobu sëñ njaga bindoon ba way juru sëñ sëñ sëñ ma bañ ju njaay kaamil ba da ca daan dem di ko ubbi di ko jàng ndekk sunu borom daf ko wax ne ko kaamil bi de bokk na ci li lay sàmm boo demee sa diggante ak ba duñ la mën a ah, ndax alxuraan boobu mbóot moom fa suñu borom defal mujj gi ñu ñu jox ko téere ba may ko ko téere boobu bi muy dem da ko yóbbaale keroog ba muy tawte ca ron garab ga alxuraan yooyu la jëlul yooyu da caa bokkoon muy mbóot danañ ko kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu wallahi bii sakantu suñ tubaab mooy alxuraan juy dox rek ci kaw suuf wuute wuñ dara wa fi tilaawati tawayta lil xuyóor jamiaha inda mamarri wa diyo suñ tubaab nag nee na su may ku bokkut ci man bokkut ci ñoom dañ cay sonn soog caa jot nee na man su ma koy def yàlla daf ma koy tale niw dind mel rek neen lu baax noonu lay mel di ñëw ci man. waaw jërëjëf Serigne Khadim Ndiaye tasawuf ñu di la sant bu baax di la gërëm ci lu am solo li nga xam ne andi nga ko ci xaside gi nga xamante ni moo di nuuru daaray ni wante ci jataay bi nga xam ne waa karamatu xattu yet yi ci ñuy tër sëriñ Modou Fall xasida ñoom ñoo ko organisé fii ci kër sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul gi jàkkaarloo ak jumaa ji ren nag yaakaar naa ñu ci taxaw nag ci tomb bu am solo mu di xasida ak nuuru daaray ni ñu fas ko yaatal kon bokki yi lii nag lenn rek ci li ngeen jot a dégg ci sëriñ Khadim Ndiaye tasawuf andi ko am na lu des ci waxtaan wi dañ leen ko baaxewaat incha allah ci yeneen i jataay ngir ñu mën a topp rek xasida gi nga xam Mamadou Nour Daaray ni ak leeral yu am solo yi nga xam ne sëriñ Xaadim Njaay tasawuf leeral na ko ci kon mbokk di leen fàtt rek ne rajo Xassida Online Touba Monde bi dooroon na bu yàgg sax li nga xam ne moo di waajtaayam ci màggal Touba édition 2014 wante jataay bi di xidmatul xadim door na wàllam moom it ci li nga xam ne moo di waajtaayu màggalu Touba 2014 nii lañ ko fas yéene ànd ak yéen xidmatul xadim bu nekk rek danañ ci indi lu am solo jëm ci waajtaayu bis bu tedd bu màgg boobu di fukki fan ak juróom ci weeru safar bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul woote woon ne ku ko rek jullit bu ko man taalibi bu ko man ànd ak man santale ma sunu borom subhaanahu wa taala kon nii la àndee ak yéen incha allah fii ba màggal ga ñu fas yéene ànd ak yéen nag yeneen i jataay yu nga xam ne lépp rek dafay jëm rek ci njàngaleem Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul kon ñu di leen sant bu baax di leen gërëm ci bàyyi xel bi ngeen doon bàyyi xel jataay bi ki nekkoon ci cadre bi doon seen bokkum taalib Modou Assane Ndiaye ci di Serigne Modou Fall xasida wante ci leeral akum njàngale mu am solo ci euh, xasida nooru ak ñaar ci midi ci diwaanu wa rahmatullahi taala wa barakaatu rabbi ya ahmadu ala muhammadi alayhi xayru salawaati sonnati rabbi ya ahmadu ala muhammadi alayhi xayru salawaati sonnati rabbi ya ahmadu ala muhammadi alayhi xayru salawaati Touba monde bi duna wërngal këpp Touba monde bi. duna wërngal kat.